Assalamualaikum mbok yi ñi bayyi xel ci mourid Info ñoo ngi leen di siyaara bu baax di leen bal àq bal leen àq ñana Cheikh Mountakha borom bi yagal ko fi way dawli yalla yalla wacce yermane seen kaw di siyaare mboolem ñi nga xam ne ñu ngi nuy bàyyi xel mu melni dañuy indi rek ben parti bo xam ne yenen émission di ñew des na ko jëlee ci kaw ba leeral ko muy ñu bari dañuy dégg dior ngone la tire la ba borom Darnde borom Gandu tabakh Lat Joor moomu buñ la ko bëggona wax dañ nan la Lat ko tuddé Lat mu mag ma muy Lat Sangoñ Jimbi sek koku di rakki Kuli jor ak Maysa Joor ñooñu barget bu buñ wax ma jojam mbend ci lor mo leen jur ma jojam mbend ci lor yaayam jojam mbend ci lor mok damel birima mbend ci lor ñoo bokk nday ak bay Lat ñi ne mi ngi bokk ci kër Kuli Koddu ñi ne mi ngi bokk ci kër Mbañ Koddu motax ca way wa dañ nan ko Mbañ Koddu gelor nga Mbañ Koddu Kuli Koddu wax nañu ñoom ñoo bokk nday ak bay la dior momu nak bo xoolee mbollem dammeel yi fi jaar muy fanwer dammeel yep fal lañu sant la dior kep moy dammeel bu sant job waye bobu da fekk condition yi ñu doon fale dammeel yi boy xol dafa moranké ba jeex ndax boba Samba Yaaye mo fi nek waye boba Samba Yaaye juróom benn at la am mu ne su ko fal la dior negu barget la bok ci ñi daan falu la bokk santut fal ndax barget ki ci njëkk falu mom lañuy wax Lat sukabe ngone Jeey domam gone jey mo xex ngaram ngaram lat sokabe momu mo fal bargedi loli yenen it moro numéro des na leeral loola bi mu nak ba aksi ba nga xamee ne dal dem nañ bu amutuñ kenn ku ñu fal dem nañ sax ba bëgg fal yaay Lat jor muy la tir fal waye Demba War sal ñaan ko Demba War jor di fesseur de roi dan ne man mënuma dégg ana mel ñu ne ma nga ci ngewal ga di lett kon daal mom da na fal Lat jor ñu bari opposé wonañ ngir bëgg falo waaye booba ku mel na Demba War Sàll muy Demba War Joor saa Ngoone Joor bu ma Joor jëwriñ amar Ñaan nga xam ne ñoom lañ daan wax mbul ku mel ne waa kër Moussa Mboore ma kodd diggéen bu kuul waa Ndaat ak Maysa Sele Njaay Jarga Law ba Sàmb Buri ñooñu ñëpp ñoo àndandoo takku ne daal danañ fal Lat Joor booba Lat Joor mi ngi am fukki at ak juróom-benn as de CSA ñu jëlee ko ci daara Sëriñ Kokki ngir mu am ay ndombay tànk Lat Joor bi mu àndee ak Demba War di wër ay ndombay tànk dem na ci benn dëkk bu ñu wax ngéej bi ñu am ay mag ñu fa nekk ñu ne xale bi ak ñetti jubbi njóobeenam yi mu bëgg a nekk kàngam loolu daal doy na waar aaday ko sant Jóob daan bàyyi ñetti jubbu ba keroog muy dugg néegub góor doo ko wat la joor nag loolu naqari ko mu dem ci baayam na ko dama bëgg ñu dugal ma néegub góor ci kanamu Demba War Sall la Joor biñ ko dugalee néegub góor Demba War Sall daa jël fas bu wax dellu ñeeri jox ko waral la Joor war di dawal deret ji di wal ba ci dégale fas yi la Joor refut sax bi mu ñëwee Demba War Sall na ko yow xam naa ne dinga mën a téye réew léegi nag jamono jooju tubaab bi mi ngi fi teg ku ñuy wax Maajooj Diggan moom la capitaine Laurence àndal ak Souris Guéberry waaye jamono jooju bu jël na con jël na kii conseil ba dem France. biñ defee lël boobu nag fu ñu bëgg def lël ba rek Maajooj Diggan yebal ay ndaw ne nañ jóge foofu ndax boobu moo leen ëpp doole dem nañu bata mu ne nañu jóge foofu ñu dem Xabnaan mu ne nañu jóge foofu ñu dem Sugeer mu ne nañu jóge foofu. Lat Joor ne ah sëñ Kokki sama mbokk la nañu fa dem bu ñu fa demee du ñàkk mu mën ñoo dalal bi ñu demee sëñ Kokki àll leen ci toolam yi fu ñu wax cuxur ñu def fëlal ba maa jooja diggéen yooni ndaw wax ne neel sëñ Kokki ñooñu nañ jóge foofu sëñ kooki ne ko ay gan laa am na nanu ma may mu daane nañu fa jóge wala su ma fa ñëwee dinaa leen fa jëlee ci la sëñ Kokki dajale doomam yi nag na leen man dekate ay ceddo képp laa jur su ma juróon ay sëriñ du demee nii wa kër sëñ koki and ak ñoom Demba War Sall ak ñom la Joor ñu takato wax ne damel bu nyewe, den defante ak mom bi maajo ji diggan ñëwee ci la Joor njëkk wan wan ka Kajoor dama mat na damel li tax ñu fal ko dal man nako ko sëkk cee Lat Joor ànd ak ñom maajo ji and ak ñoom Demba War Sall ñu xex ak maajo ji diggan gañé ko dakk mu daw ba la xor ci suuri ga beri ndax boba feder bu jël na conseil ba dem France suuri ga beri la fi tegoon suuri ga beri momu nak mu and ak armée bi ñëw ñu dakk ki nga xamne mom moy la dior mu genn ñu jojja sampane ma jojja mu xalaata def ndan mu nek fitir capitalu kadior bima defé lolu tegaat fa jojja xalaat ndan mu nek fitir capitalu kadior mu daan na suuf ci 300 mètres yépp day mbokk ci moomeelu France wa kër la dior biñu leen genné dañu def benn coup d'état ndax dañu fexé ba gis bul Zamba Maram Gay mi andon ak jojja diggante ak capitaine Laurence ñu tass sayib demb Soko may ko maa jooja may ko ki nga xam ne moom mooy euh, jëwriñ bul di Samba Maram Gaye ñu def coup d'état ca ndànd génnee ki xam ne moom mooy maa jooja diggan loolu it mi ngi am ci atum 1862 1863 lan lan la la bu ñëwaat ñu dàq Lat Joor mu génn mel na kuy dem Bawal dem ba Ndaari loolu mi am ci décembre 1863 gàcce googu nag naqari Faidherbe bu lool lool waaye ci xare boobu la Kajoor waxee ne rayab tubaab du yomb na waaye fekke njaal ma dana métti tax nag Faidherbe boobu bi mu ko loolu naqaree nag mu takk benn xare bàyyi koo ndànd wax la laprade mu takk benn xare bàyyi koo Gorée ñu paree Lat Joor Loora muy la bataille de Loora Loora Lat Joor li mu tegoon baax na ndax dafa mel ne luy bëtt ci armée tubaab yi kabel yooyu dañuy mel ne luy rappelé wu waaye su tubaab bi ñëwee rek ñu mën koo wër ndomba waaye ci la tubaab bi njëkk utiliser kanu ndax kanu bi ko parlement bu France liggéeyee euh, bi ñu ko liggéeyee parlement bu France dañoo waxoon ne amul kenn ku am droit tiré ko ci kaw ay nit. su doon jamono ji dafa wéyale li ñu tuddee droit de l'homme waaye booba ku ne xam na ne euh, loolu daanaka ñoom fonkuñu ko stratégie la Joor boobu nag ci la ko kanu yi yàqe ñu rey ci waa Kajoor cent personnes juróomi téeméeri nit daanaka ci la Kajoor jeexee juróomi téeméeri nit waaye it yàlla def naa bi loolu amee it ñi dàqoon a xeex ci Kajoor faatuwul Demba War Joor faatuwul Sangoone Joor faatawul bu naama joor faatuwul alburi ba faatawul góor gi maxet beey faatuwul mbutu fa góor gi maxet géey faatawul ak mbutu fa beey ñooñ ñooy leet naa yi dàqoon a xeex ca kajoor tey ñoo dar la Joor fal ko ñooñ nag ñoo gàddaay ne kon ñoom dañuy dem siin ndax kajoor daanaka jeex na bi ñu demee siin ngir fekki Maba ndax Maba digënté mak la jor dafa yag ca longor lan déparé won bokko nañ nek longor ndax longor da naka nekkon na capital Sénégal ndax dëkk bo xamné ne Maba Jaxu Ba ma nga fa la jor ma nga fa Demba War Sall ma nga fa kon dëkk bobé jamono jooju longor amon na doolé biñu gadayé sax ba jaar siin am na buur siin nee na leen yéen seen dafa tuuti motax su ngeen xaré ñu gañé leen kéral la jor tudé façon malaw ñu ne lu mundu muna lum reey ko lum reey ko gudd rek naka mëna gor manam loolu la aw teex la manam bursin sin dalen wax ne yéen sen bur daa tuuti motax su ngeen xare ñu gañe leen Lat Joor tudde fasi maalaw ñu ne ko lu mundu mu ne lu reey ko gudd naka mané gor bi ñewé fi xam ne moom ba jox ba yabal ko ñu wax brand Cissé mu wadi wax nako ñoñu kan ne len faaw ñu tuttu bu sell ma doog dalal Lat Joor tudd Silmaxa Jóob Demba War sal tuddu mohammed sal ñu duggu fi xam ne moom mooy ñoora bi waxna ba jox ba ne ko man kat suma sañon dang may wan buur yi nga xamne tuubu ñu te nek ci dekk bi ma ak ñom la jor sa bu xëy day ànd ak ñoom Demba Waar bu ñewé daan nga ngeel waan sax leen ko ba mu jël ak dolem ci la raye buurub ñani lak dekk ba ray buurub say say ray lak dekk ba ray buurub gasan lak dekk ba ray buurub walya lak dekk ba ñani googu am waxtaan ndax ñani bi ñu ñewé ne nga ngeel yelwaan sax leen ko ba mu jël ak dolem buru ñaan ne man ne ndongo la yelwaan jël ak dolem li sax dal moy poutre ak bal keroog nag Lat namam nee maam Demba War dang may bayyi ma yegg ci kawam Lat Joor ci siñum sakkat wi fekk burum ñaani muy xap ci mbalkam mi Lat Joor jël jaas salaama gi gatch ko ci ñaari wet yi gajj tuway ga ko fekk ci li ngay lek sébrit ak meew motax jaas di la def li bo doon lek ndawal jaas di la def li Lat Joor ak ñom Demba War amna ñetti fan ñaani di nang wa ñaani di xalam ñaani nangu nay job ñaani nang naay job bam sax dak légui nak bu né ne mabba joxu ba dama dak sama nat bam dugg sam kon danga ma koy génne ma ba jox ba na ko man xaj sax bu dawoon ba dugg sama biir kër dinaa ko fat ndax euh, yaakaar gi ma yaakaar loolu moo waral la bataille de Paoskoto muy xare Pathé bajaan di xare bu méttee métti tax Faidherbe bu daa takk benn xare boo xam ne 6000 soldats ak 4000 volontaires ñu ñoora ngir jël si la Joor rayaale sëriñ si mu jeex jamono jooju daf fekk ne Maba Jaxu Ba dajalee sëriñ sépp ñoora sëñ Maam Mor Sali si la sañte Poroxaan sëriñ si ñii dugg xalwa ñii di werdu ñëpp di ñaan booba maa ba jax ba mi nga am rakko ju garaaw ju man kurus di naan maa mu ndëri soo demoon ñooro bu ñuy waat ban la barke ma baag maa mu ndëri da xam ne ñii sës nañ bi ñuy waaj xare bi la Joor na leen li laay war suul yéen waa Saalum te ngeen maa bàyyi ma jàkkaarloo tubaab bi ndax yéen day xamu leen tubaab da dégg na ngi ñëw rek tax ngeen di waaj ñii maa xeex ak ñoom Biringaraaf maa xeex ak ñoom Cuxur maa xeex ak ñoom ndànd maa xeex ak ñoom Louga maa xeex ak ñoom Lora maa xeex ak ñoom ngol-ngol maa xeex ak ñoom mexe mexe xëy na duñ ci insisté waaye xeex bu garaaw mooy mexe ndax mexe ñetti cong la waaye dañuy bañ ñiy déglu mbir mi di réer ci ñoom bi nga xamee ne takk na xare boo xam ne 6000 soldats ak 4000 volontaires Lat Joor daal ne bi ñuy ñëw gis naa wenn xur wu gudd te mel na lu am ndox te tubaab dafa bëgg ndox léegi da ñuy bàyyi ñu njëkk leen ci xur wi Lat Joor ak ñoom Demba War bi ci xur wi musóor garab yi ba ak ngañ yi ba mu mel na nit fekk na Lat Joor waxoon na leen que tubaab bi seen doole yëpp ci kanu yi nekk suñ fexee ba kanu yi tàkkut bu dee xeexu jaasi ak loxo rek ñoo leen ëpp fit ñoo leen daa xeex te booba kanu yi ginnaaw la daan féete ndax dañ ci daan xëcc biñ duggee ci xur bi làqatu bi tubaab yi ñëwee ba def benn rancée bu gudd Lat Joor jekk-jekk rek dagg benn colonne ba Demba War Sall feelu ko Alburi Sene ba ñu éliminé ñu yoroon kanu yi ñuy xeex nag jaasi loxo loxo ci la ñu dem ba ray ci tubaab yi lu baree bari jam capitaine Canard jam pinet muy ñi jite woon xare bi ba léegi nii ci histoire mun ñu la wax capitaine Canard fu mu jaar ba daw mun ñu la wax Pelé Laprade fu mu jaar ba daw loolu la bataille de Paoskoto daanaka l'islam foofee la commencé waat di sigi ab diir Maba Jox Ba ak séeréer yi siin yooyu ca somb ñu rey Maba Jox Ba Lat Joor sañawaat ak tubaab bi ay négociations yoo xam ne lu bari la du fi xaj ngir mu dellusiwaat Kajoor bi mu dee dellusiwaatee Kajoor euh, Ahmadou Seexu dal ci kawam mu rappelé yow dem ci tubaab bi laaj wàllu loolu ma waral xare Samba Sadio. waye Lat jori dafa amone ci biram benn leer na buñ wax Alburi senaba ñu def ci benn parenthèse kan moy Alburi senaba Alburi senaba moy wayjuru bona Alburi momu Youssou Ndour di wax ne ba jorof male nan ya yaa bënëb exil di Alburi daanaka li ko waral nit mom bari na Alburi senaba dafa nekkon ko xamne ne ku amone doole la ko manono xex la ndax amna ci xare bo xamne ne jor Joor dafa wax ne kuma rayal gor gi may sa maram babu dina la fal ñu bare doon wër goor gi may sa maram babu ci biir xara bi waaye goor gi masaana tok ci ron dakar gi lal der bi boo du tak waaye yalla def alburi moko ñëk gis dawal fas yu ñuy wax capitaine bo jup goor gi taxaw ci déggali fas yi jàpp benn mu faq mu ko goor gi goor gi diko capté mu fetal ko alburi senaba yit moy. Euh, borom keuru ma jigen basin ma jigen baasin moy wayjuru juru alburi bi yalla defee ñu may ko ma jigen baasin ci dëkk bu ñu wax mboy naan alburi dem diko sété ñukay ganalé bara ak goncaari attaque yang-yang di len fetal kérok yaayam Sénéba job mo organiser ben résistance rogalee Alboury Sénéba ñu may ko ma jigen basin ci dëkk bu ñu wax moy naan bara ak goncaari attaque yang-yang di len fetal guddi ak bëccëg yaayam Sénéba job mo organiser ben résistance wax faraka ben njéeme basin nga tak fas ñu wax capitaine ñu ne ko lu wundu mu ne sor yo gis dal capitaine mu ci ñak faraka ben njéeme basin tak fas ñu wax capitaine booba alburi ma nga ca mbooy naan sonu ñukay ganalé alburi jek jek na tek waxuta kenn bam fekk na Alburi amoon na benn xaritu géwalam bu ñuy wax mbul di maram gise moo nekkoon bara droitam Alburi jékki-jékki daan ne mbul di maram gise yëg nga ne fa su bari doolee nga daw waa mbooy naan ñëpp na tekk ndax gis ñu dara ñu ne tekk ab diir mu ne mbul di maram gise yëg nga ne faraka bay njéeme baasi dana rey sama mbul di maram gise ne ko yow da ngay jinne wala da ngay rab nga nekk fii ci mbooy naan yaa ngi wax fas wi daw waxatu fas wi ngay wax kii dawal fas wi mu ne ko fas wi daw capitaine la faraka bay njéeme baasin koy dawal yang yang jàmm xewu fa si faraka bay njéeme dan nak alburi sa yaay Sénéba Jóob nee na boo yeexee ñu doon jam ndax bam fi jógee ba léegi ci bal la yendu ci bar bara ak goñcaari ñi ngi attaqué yaa ngi di leen fatal gudi ak bëccëg alburi diko laaj kangam yi benn par benn kum ko leen mëna ko faata gut kum ko leen mëna ko faata gut alburi nako kon yaa ngi tassagul dugg ci biir nek bi takku ba deugar alburi bu san takku ba deugar dañuy bàddi sakki di mu genn ndax dafa matoon nit yenn saay benn dag daat koy kar nako bayil ma dem dag ba ak yi andil la alburi na leen déedéet mbojj borom bëggee xam nu pep ma toll bu ñu koy bees da koy fekke bàyyi leen ma dem noonu la alburi def dem dajeek bara ak goncaar yi rey leen dagg seeni i bopp seen bàmmeel yi ñu ngi foofu ci yoonu jolof woowu kon loolu lu ñu doon def ci benn parenthèse ci alburi Sénéba la Joor bi yàlla defee mu def signé ak tubaab bi ñëwaat def ay négociation al bi mu ñëwee Ahmadou Seexu dal ci kawam mu répélié wu laaj tubaab bi wàll tubaab bi jàppale ko mu dem xeex Samba Sadio ray ki nga xam ne moom mooy Ahmadu Seexu teg fa ki nga moom mooy Alburi diggante Lat Joor ak tubaab bi nag seen jafe-jafe yi li ko gën a waral dëgg mooy semaine de fair bi ndax tubaab bi da doon xalaat ndax bi yàlla defee ci atum 1855 ñu occupé Gorée nangu ko ci at moom lañ nangu Rufisque ci lañ commencé woon di xalaat nu ñu def ba def benn raay boo xam ne day départ Dakar ba seel wi mu nekk 260 kilomètres waaye cent kilomètres yi day jaar ci territoire territoire Kajoor Kajoor dammel bu ñox la Joor moo fa nekk. moo tax kon faaw ñu négocier ak moom benn tubaab bu ñuy wax Brière de Lille moo dugal xalaat bi ci bopp Lat Joor Brière de Lille moo remplacé woon Pinet-Laprade mi la mi remplacé woon Vallière Brière de Lille moomu moo ñëw ci Lat Joor na ko suñu xaritoo bu yàgg suñu kóllëre boobu ba léegi maa ngi xalaat nu may def ba yokk koom-koomu Kajoor sa réew te lenn rek laa gis ne moo ko mën a yokk te la ko gën a gaaw moom mooy yoonu saxaar jéeri tey su boobaa gerte gii ngeen daan jaay Dakar. ganjol rifisk dot len ci fek te même njëg mi ngeen koy amé fi te ba coono bi dot len ci fek la dior gisu dara lu ay ci lolou ko birier Delil wax birier Delil mi ngi set la dior ci bir wax ji la dior gisu lay mu jox accordam way si ñegut mu ne ko sax bëgg na ma def ben tukki ci bir kadior sama jaaré dekk bu reuy jaar ndand jaar xandang fu ma jaar ñu rayal ma ñaari nak lu ci nekk dina ko fay sama xaaliss te sax dina la may ben fas bu rafet bo xam ah, ding ko wara mëna bëgg nga yabal kenn ci sa dag yi ku melne ne Ibra Fatim sar la dior sax bañon nabi wax Ibra Fatim sar waye mujj mu nangu ñi yabal Ibra Fatim sar bimu ñewé biré Dalil jox ko faswa may ko menn manto may ko 50 ngordo Ibra Fatim sar ci bopam euh, tuwa bi daat koy may momit ben fetal ñu teg ca ab diir bi yabal ay ndaw ñuy ñaas yoon wi sahar gi wara jaar di marqué garab yi Lat wor woor Demba War Sall ak Ibra Fatim sar ne leen waaye yéen jaaxlewu tubaab yi fi jaar léegi ñaas liñ bëgg a ñaas rëdd liñ bëgg a rëdd samp seeni bant Ibra Faati Saar na ko yow yaa waxoon ne lépp lu yokk koom-koom Kajoor ànd nga ci la doon ne ënd ma ci tey ënd ma ci ëtt ëllëg su fekkee tubaab bi ne dafa jàpp ne mu ëpp doole dafa def raay bi seet demb War Sall na ko yow daal yaa waxoon ne ànd nga ci mu daan ne yéen ñaar ñi da ngeen maa bëgg a wor te dégg naa ne sax tubaab bi di leen a jënd ci liggéey bii mu bëgg def ci semaine de fer bi Demba War wax kàddoom na yow la man dembe War Sall ca jamonoy ndaw kan mo la imposer kadior bañu fal la man dembe War ma def lolu nako la dior as de cesa fukk at Mandem juróom man dembe War sal ma fexé ba la ba kadior fal la nako la dior Joor fàttalikul ba balé tak kan mo la ëmb ci mbubam rawali la man dembe War ma ma def lolu ñi la wër tay sa dag yi kan mo la lolu dañ ñi fénal rek nako dembe War sal nako la dior kan mo dem ba wuli mu ray buru wuli wat kawru njimbiri la andil la man Demba War sal ma def lol nak xolal loxo bi yag tay ta dam sa ngor la damé euh, la dior yaramam daw waye taxul dal sen digënté xawa a neex ta ñu bari dañu japp ne rek la dior ak Demba War sal dañu and tay xey takaliko am ku fetal morom ja lay xeexew dedet takaliko nan sept ans 1877 lañ takaliko dekkale am 1886 96 kon 1877 li am 1896 kon yàgg na tàqali ko nan 7 ans yoo xam ne gisante wun te Lat ak koo mën a doon ci biir nguram gi soo ko wanee ginnaaw du la dabu te Demba War Sall dafa fonkoon Lat Joor daf ko bëggoon demoon na sax ba bëggaat ñu dajee mais Lat Joor na ko dama fekk si ba la ca xew-xew ba fekk si amul seen diggante xaw a naqari ndax booba Demba War Sall mi ngi woote na xaritu gouverneur la fa Fatim Sarr ñu ngi koy jiñ ne moom espion France la loolu bokk na ci leen xaw a Tak, euh, taqale le. Lat Joor bi mu bañee loolu bi daal di yebal wax Buyel al Magdad Buyel al Magdad daal di ñëw ci toba daal di ñëw ci Lat dior dal koy defal dal nako semaine de fer bi yokku dara ci kadior te rew yi melni ni amna fa te rew yi julil lan te li nga ci xalat am man tukki naa jaar na fa Lat dior daal di nangu nango, dior bima mu dafa signé waye Lat dior bima signé wa kadior ken xamu ne dior signé na ñaar rek ño xamne ne dior signé na muy jaxta Kala ak ma sek ndoye bawo waye kenn xamul ne la Joor signé na ñu jox ko document yi mu nek 14 article la Joor daal ko itigé 4 jours jox ko ay serigne dara ñu itigé ko ñom ñu xol ko la Joor sax la tay doli ci article yoy wax ne liggéey bi ñu nek duñ ci tek doomi Kajoor yu lu diis te campagne bi bu nek at mu jot mom la Joor dañ koy jox ñaari fas lool lañu signé biñ signé lolu ñu jël dossier yi dal ko yone France.

vingt mille francs Blindé ne mën na ëpp loolu mën naa dem ba trente mille minimum ba quarante mille ba cinquante mille nañ defaat beneen éthique financière. kon dañuy taxawlu foofu rek ci beneen numéro ndongali Mor Ndiaye la wasalaamu ala man tabal huda